saaxu Ousmane Sonko. Adji Sarr indi Ousmane Sonko jàppal sëñ Bassirou Gueye joxal euh, doyen des juges indi huitième cabinet coow li bëri ci ak ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ñu mat euh, limu fukk ak ñett euh, ba léegi pënd bi wureegul kenn xamagul yëf yi fu mu fu mu féete. Adji Sarr génn bërki démb def déclaration date bi ñëwaat na un an après lan moo xew. li xew un an après mooy que dañ ci joxoñaat baaraamu tuuma. sunu justice boobu mooy bu njëkk bi beneen bi aussi mu posé waat beneen question de souveraineté et d'indépendance par rapport à nos affaires domestiques yi nga xamante ni day xew sunu biir réew il y eu tellement de de cas de viol de tout ce que tu veux en France mais jamais nga gis par exemple un média sénégalais am la possibilité la primeur d'interviewer les concernés en Direct. France. Absolument. donc pour man loolu aussi dafay réaffirmer beneen beneen niveau de souveraineté boo xamante ni il faut que ñu nangu ko assumer pointer ko du doigt xam ne dox bi dafa desaat encore lu bari. ba nga xamante ni pourquoi ces média qui ne sont même pas suivis par les Français. les médias yi nga xamante ni ñooy ñooy lëmbee ci biir Afrique lenn daal la ñuy réussir mooy nu mettre les uns en face des autres. tassaare suñu réew yi nekk ay appareil idéologique euh, de l' appareil français nga xamante ni suñ ñëwee avec des dessins yoo xamante ni des visées yoo xamante ni bien claires dans leur tête di dérouler un agenda bien clair souvent suñu ñëwee seen i motivation fondamentale pense que ce sont ces médias-là qui sont venus ou bien ces acteurs, On les a fait venir. Euh, on, les, a, fait, venir. Mhm. dans, dans, dans, un cas comme dans un autre. Dans quel intérêt ouais, Exactement. Qui a intérêt mais, une, une stratégie. C'est une stratégie. Mais li ma bëgg pourquoi may taxaw si médias yooyu ne français yi sax daanaka duñ leen seetaan tu sais mënoo mën nga waxtaan ak ay français yu dul jeex pour ñu xam rajo France Internationale wala pour ñu xam euh, France ba ci France 24. Mm-hmm. ba ci ba ci euh, Jeune Afrique par exemple. doo doo doo leen doo leen gis ci réew yooyu ñu leen di bàyyi xel donc suñu réew yi daal dañuy ñëw am benn yitte boo xamante ni souvent ay question yu sensible yoo xamante ni fi mu ne nii ni ñu mën a sawaree ci mbir mi parce que gis nañ jéeye bi mu indi ci réew mi noonu la ñu mën a sawaree ci affaire Lamine Sall imam Lamine Sall parce que gis nañu yu sensible yooyu daal mën nañoo jël daal di koy mettre ko nag ci biir kii bi ba nga xamante ni dina alimenter benn kii donc. ci moment bu nga xam ne euh, euh, Russie Ukraine ma ngay toj nga jël Adji Sarr def ko. donc la prise en charge de nos dossiers de des nga xamante ni ay dossier domestiques la. loolu dañ ci am benn war a taxawaay bu am solo beneen bi mooy euh, dossier bi y a un dossier dans ce pays qui concerne le cas spécifique de viol. mais boo xoolee dossier bi traitement bi mu am bu ni mu particulier ma ne dañ ciy joxañ baraamu tuuma euh, justice parce que on a vu dans ce pays là que la justice quand elle veut être rapide elle est rapide. Mm-hmm. quand elle veut être lente elle est trop lente.